هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السخي أنوارا لكشف دجنتي من الأنبياء والمرسلين وغيرهم aawuzu billaahi na sheytaani rajiim xam naa li sëñ Mansour daan wax ne ndigal ak ndugal ak ndigaale ndigal mu ni boo mënee defal boo mënul defal ndigaale boo mënee defal boo mënul bul def ndugal nag boo mënee bul def boo mënul bul def ah dañu ñëwoon rek pour wéttali si leen ndax xaaj jabel mi sikk newul ci ne lii mu doon waxtaan ak yéen ci góor gi ñépp bu ñu ko taataane doyloo ko rawatina sëñ Abdou Aziz Sarr bii ci ginnaaw di professeur sëriñ bi wóolu woon ko tegoon ko ci wetam mbindam yu bari mu daan ko ko sant daan ko ko saytuloo tabaarakallaahu jóob nuyu sunu léppi bopp di Daouda di Daouda taxawu ci cordon ci yëf yi taxawaay bu jéggi dayoo waaye dañuy wax sànq rek ni nit du dee abul alal maar yi nee na yàlla nit foo gisee yàlla wax ci alxuraan mawt dee dund la jate xalaqal mawta wala xayaata doo dégg mukk alxuraan dee yow dee te tuddaatu dund ci rawatina nag nitu yàlla boo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo wax ci alxuraan laa taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaquuna waaye farixeena bi ma aatahu nit ñeent la dañu wax ne xayun xay xayun mayit mayitun xay ak mayitun mayit xayun xay mooy kuy dund de dox ba pare di jëriñ nit ñi ak xayun mayit kuy dund te dee mooy kiy dund ba pare te amalul nit ñi benn njariñ société bi soxlaatu ko ak mayitun xay koo xam ne jëmmam génn na fi waaye nag ba léegi mi ngi dund ak ruux mi ngi dund ak nit ñi ak mayitun mayet ko société bi soxlawul woon ba pare mu dee boole ci kenn gisatu ko loolu nag dalul sunu kilifa gi muy sëñ Mouhamadul Mansour yàlla xam na ni ba fii ñuy waxee yéen jataay bii mi ngi koy superviser te loolu boo demee ci xurtu bi Seydina Muhammad moo ko wax ci xadis nee na bu leen teg seen néew yi gàcce ñu ne yont bi nu ñuy tegee suñuy néew gàcce mu ni nit bu génnee àdduna njabootam bu ñu nekkee am lu ñuy def ci kaw suuf da koy superviser moog ña mu nekkal bu dee lu baax la mu bëgg ca bu dee safaan la mu mer ca moo tax Seydina Muhammad wax ni xayaati xayrun lakum waaye wa mamaati xayrun lakum ñu ne ko yont bi sa dund jaaxaluñu waaye sa dee moo ñu jaaxal mu ne guddi àjjuma guddi altine gu jot moom Seydina Muhammad lu xeetam wi def ci bàkkaar dañ ko koy indil mu vérifier lu ci baax mu ni yàlla di mataleel lu ci baaxul mu ni yàlla di jéggal leen loolu nag moo indi jataay bii ñuy fàttaliku kilifa gu tedd googu di sëñ Mouhamadou Mansour nga xam ni ba àdduna tukki daan na wax ne boo faree lettre ñu bind ci alxaaju bu laaj ko ko moom alxaaju Cheikh Omar Fouti moo ko moom boo faree lettre ñu bind ci alxalifa nee na bu laajte ko ko moom sëñ Babacar Seck boo gisee lettre ñu bind ci borom daara ji ku ko forte maandu doo ko yóbbul kenn ku dul sëñ Mansour loolu nag doona la bis dafay <clears throat> liir ci benn téere ñëw ñi sëñ Babacar damaa waaroo sëñ Babacar nag loolu waar mu ne ko damaa xamul nag naka la nitu yàlla di amee yenn martaba yi mu ne ko xanaa ci jawaay jawaahirul xam sa nga ko gis doom mu ne ko waaw mu ne ko martaba boobu ba ma ko rombeek léegi doom mën na ñaar fukki nekk na ci daara ji moom sëñ Mouhamadou Mansour am nit kuy ñëw di luxus xale yi daw di ko yéem keroog bi aal bi tàngee baaraam loon def nii xaalis bi wadd mu leen lii bañ ñu koy jàngal ay xale lañ am na njaboot gu ñëw bis mu woo ko ni ko diw yow yaa saay saay am na sëy boo xam ne bu yàgg ba léegi ñu ngi taxaw pour naka la sëy bi sottee biig laa la gis nga naa ndaw si lànkal buñ ci bëggee dugal bul ci dugg mu ne ko si mu ne ko billaahi yaa ngi taxaw ci wetu place sàngam ak diw nga di ko wax ndaw si mu ne ko waaye yeesal ma daayira mu tax xàbbi na bu Louga fekk nañ ko ñoom re bëgg koo jox àdd yi xeeb liñ ko war a jox ni ci ginnaaw di xoolante ak di ko compter ki naan nañ ko yokk ak ki na bi mu tijjee mu ni leen waaye yéen àddee ju ngeen ma war a jox rek di werante ndax da ko war a yokk wala da ko war a yokk gaa yi tiit mu ni bu ma mënul woon ni ci biir di xam li ngeen di waxtaanee jarul ngeen may topp te loola ndono la sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu ku dégg ay mayam léegi xam ne mën naa jur ku ne nee na li muy bon bon bon bu ma ne woon yàlla tin ma ci mu yóbbu ko àjjana nee na luy ñuul ci wee mosuma ko fàttaliku fu ma mayee yàlla man sañ Baba a nee na ca alastu bi rabbikum xaaloo balee ca la négocier pour alaaji maa nekk papaam mu yàlla nitu yàlla bële de bu ma sañoon bu ñu demee ci àllaaxira moomuy muy jur ne fi mu toog ci Tiwaawan fel way dox ca pont Ndar buru tànk ba dukk dukk ji mi ngi koy sonal fi mu toog moom sañ Baba ñu ne ko dañoo gis ne yow doo jox sa taalibe yi turu yàlla mu ne fexe ba doon turu yàlla ci say bi moo ëpp doole den jox turu yàlla moo tax su su imaam Sukayri ne xutbu zamaan boo xamee turam am ci li nga bëgg moo gën a gaaw nga jaar ko ci turu yàlla nit ku nekk ñaari tur la am tur wi la tuddee fii ci kaw suuf ak sa tur bi ci kaw asamaan bu ko nitu yàlla xamee dina xam kañ ngay judd kañ ngay dee ñaata fan ngay am ak loolu sëriñ Haaji Maalik loolu da koo teel a defal njabootam maam Ahmed si nga daan romb benn jigéen romb na ko di waaxu mu ne ko yow looy yàkkamti xamuloon yow di nga am jëkkër di nga am ñaari doom kenn ki góor lay doon kenn ki jigéen nga xam ni kashfu ba dafa bari woon ba bu mu saan génn ci jàkk sëñ ba say Hadj Malick génn doo xamee kan moo ci maam Ahmed si ak moo ci Seydi Hadj Malick sëñ Babacar si nag radiyallaahu taala anhu mës a weranteeg maam Ahmed ci yu mel noonu ba sëñ Babacar yaram yu tàng mu ne maam Ahmed si boo ma ko waxatee dog ci tarixa bi sëñ Hadj Malick ñëw ni ko maam ama sëñ Hadj Malick dégg li Babacar wax may wax ak moom sëñ Babacar sëñ Hadj Malick ni ko ah man de maa ko jur waaye bu ma ko waxoon ma yeesul mu ñëw ni ko waaye yeesal ma ak sa bopp bu nga xam ne ñoom seeni may mënuñoo jur kulul seen doom laa xarwa an yarsala walidu bi walidin waaye sëñ Mouhamed Mansour nag dafa am beneen beneen particularité bu ko ci yàlla defal wax naa sànq ni Souleymanu Amrin boo ko déggee Moussa wiin bi najdatin xalilu yu diin sunniyun li Muhammadi dafa incarné loolu ci baatin ak ci zahir ba fu mu toog da koy feeñ bis gars yi dem be nañ VDN booba jamono Sénégal mi ngi am delestage courant yi di coupe ñu egg ci deux voies yi ñu dugg taal lamp yi tàkkul mu ne ana Omar Diop mu ne ko maa ngi mu ne ko wool ma kilifa Sénélec mu woo ko mu ne ko yow dag may fondoo nee woon naa la nag ma contrôlé kër gu ma jëm bu mu coupé nda tàkk léegi léegi mbaa ma fay la yow ci wàllu bopp sëñ Babacar dañuy dañuy dañuy sëñ Cheikh dafa ne àddina minal xaajaati fii saxaarin li subhi fii saxaarin maanaam ni sëñ Babacar di faja aajo ni mu jegee fajar ak suba loolu itam toppatoo woon na ci sëñ toppandoo woon na sëñ Babacar ba aajo sëñ Mansour ci sa am na ci o xam ne daawul sax eh, wer bi mu nekkee armée ibbi fa daara di fa jàngale di fa gàmmu maanaam li ñu li mu doon def Tiwaawan da koo def armee ba foofu mujj gi militaire yi di tardé bu ñu leen wooyee pour manœuvre ndekete yooyu ña nga jëkk sëñ Mansour di jàng ay nuunu yaak ay xilaas saab chef bi nag bismer ni day tëj sëñ Mansour 24 heures dana ko tëj kaso bur wal ba xam moom doomu xalifa bi la wala 15 jours la ko la nii la koy tëj bi ñu yónnee sëñ Mansour lettre mu ne fii daal naa di téléphoné sëñ Babacar di ko tiis tàllal loxoom jàng ñaan la muy ñaan dañ cay teg 5 minutes chef ba ñu affecté ko ci saa si ne ko yow France yónnee na note léegi bis naka tey amatoo fi droit. maan say bagage sax Dakar fekk yow da dugg ci oto bii ànd ak oto bi daan la yebal say bagage fekk la fa nga nekk ñu àndi la ko te loolu eh, wiraasa la koo xam ne ñoom dañu ko doon ci mag ñi yàlla defal leen ko te am na ci loo xam ne itam expérience la bu nit dund ñun fekk nañ ko bis ci VDN këram boobu muy defar rawaan di way mu ne ma jox ma ma may rawaan te boobu maa ngi jóge Louga gasoil bu ma ñibbee Louga laa dese maanaam benn dix mille franc te bu ma ko joxee rawaane wóor na ma du ma ñibbi mu ne ma jox ma ma may rawaane ma làmb sama poosu gauche ci la xaalis bi nekk ma bàyyi làmbaat poosu droite mun ma sa poosu càmmoñ ba ñaari bee cinq mille mi ngi jox ko. te yooyu mooy yu gën ndaw ci yow xam nit macha allah. nit jaaxle bëgg am doom ñëw ci moom nee na ma juróom sëñ Babacar daf ma koo jagleel jigéen ju mënta am doom ku dof pour mu faj la yenn saa ñu takk dof indi mu ni tekk leen ko ñu ne ko sëñ bi kii day dóore mu ni tekk leen ko ñu tekk mu ne ko nanga bàyyi dóore bi ah mu ne waaw mu ne ko toogal kooku foofu lay jaaree wér moom sikkar ba turu yàlla jàpp la te lii li yéemoon sëñ bu ñu la indee ci dof yu mel noonu nga defee ni zikkar la wala turu yàlla ñun an fekk naa jataay ñu indi benn nit mu ne ko yow dara jàpp la pion yi ngay naan moo la jàpp bàyyil drogue bi ngay naan jógal dem te effectivement waa ji daan drogue yow te buñ ko indee yanu gis muy daanu ñu defee ni werd la fekk du turu yàlla moom xam na ni lii drogue moo ko jàpp bis dem nañ jaar na yaram yu tàng wallaahi keroog man la noot loo ñu pare mu xaalu ni lal leen balaan wasifa ñu lal mu xool ci jataay mu ni eh jugal yow xool kenn ni ko jugal ñoom ñëpp bu mel xoolee kenn du ci taalibu Cheikh Ahmed Tidiane gaa yi ñoo génn si ni waa lan moo tax paa bi yëkkatuñu ma ne ko ñun dara waa ji man de neexul ba neexul waaye nag du ma taalibu Cheikh damaa a ànd ci groupe bi rek comme koy topp boobu ba ma koo gis ne bu ma profité ci mbooloo mi mën naa ko gisaale am bis voyage boobu ngeen dégg mu dem jaar ne jóge fa dem waalo jóge fa dem Maroc jóge fa dem Casamance soog dem Màkk mu ni Sëriñ Haaj Maalik moo ko feeñu keroog wallahi ci yetu oto bi laa taxaw mu ne ma Sëriñ Haaj Maalik moo feeñu ni ma naa dem Jàdd jubal fa dem Waalo bu ma fa jógee dem Maroc jubal Casamance soog a aji Màkk nga xam ni eh, nekkoon na ko xam ni maanaam eh, feeñ na ba pare nëbbatu boole te néew na nga daan ñëw wax ko aajoti faju ko ci saasi xamoon macha allah nu ñu bis am naa sama benn mbokk ndeysaan bëgg am liggéey mu woolu bi ki koy bindal ni ko bindal ma meeru Louga bi ni ko kii sama jarbaat la bu ko neexee na ko jël bu ko neexul na ko jël bu ko jëlul dinaa woo président dana ko jël ni ko nag maa ngi koy gërëm ca biir màkk yam ma jënd jëndaloon wasalaam yónnee ko ne ko sëñ Mouhamadou Mansour am na bis ñu nangu suukar suñ ko doon andil waa ji ne ko sëñ bi say soo ko salañ jàpp mu téléphoné ana chef douane bi waa ji ne ko maa ngi ne mu ne ko fekk ma tiyaawoon dama laa soxla waa ñëw mu ñëw ni kii nag mooy kilifa ak sama xarit la sama taalibe la sa gars yi nag sama suukar sa la ñor mu ne ko sëñ bi suukar saa ngi ñëw léegi te bu ko woon ca Dakar ne ko suukar si da waaye fokk mu indi la ba ci kër gi présenté la gars yi ba pare nag nga soo ko def mission bi mu la sant loolu nag mooy Souleymane Amrine yàlla def koo mayoon euh, mu doon loolu ci Cheikh Seydi maa ngi am bayra sëñ Abdou nee na bayra bi ci sëñ Mansour dana néewati nga gis nit ku ko yàlla defal noonu itam la bëggee woon def lu baax boo ñëwee toog li nga li muy njëkk xool ndax li nga sol lu baax la wala du lu baaxul am na kilifa diina gu mag gum seet ni ko yow waroo dëkk ci néeg bu mel nii waroo sol yére yu mel nii si mu yéreem soloon jox ko tabaxal ko fa mu dëkk su ko defee nag ñoom di fàttaliku seen jaar-jaar waaye la gën a neex nag ca la ci jàng mooy sëñ jikkoom ak jëfam dafa moso dafa àndoon xam-xam nag mu incarné na ci woon loo xam ni ku ko bëgg a mësaan ndax rek ci xam-xam nga koy ndax maîtriser fànn yi nag ci manière bu jaaxal ku ne maanaam lépp looy wax ak moom da koy tari ci am na xeetu fànn yoo xam ni boo gisee kër Seydi Hadj Malick seen xam-xam yéeme maa ngi koy wax sànq am na funun yoo xam ne Seydi Hadj Malick bis nee na li ko metti mooy li yàlla ballal ci dënnam 360 xeeti xam-xam te xamul naka la koy kan la koy mën a waxal ak kan la kan la ko mën a génnee waxtaan ceeg ni dara gënu koo metti maanaam yàlla ballal nàccal ci dënnam 360 balwaayu xam-xam te xamul nan la def ba génne balwaayu xam-xam yooyu ak kan la koy waxanteel jàng almul ixtilaaj almu zërdaq almul baytara xeeti xam-xam yëpp nga yeboo Seex Seydi Hajji Maalik lañ ko daan jàngale su ko defee nag ñun ñaar ñëpp nag man ak jabel sunu sëriñ ñëw na nag bàyyi bu saaxo dafay gàmm ba mu yàgg mu gis nit ñeeg rëg-rëg ji ndekete boobu Alaaji Abdoo ñëw Ah, su ko defee ñu dalal kilifa gi ba noppi ba nuyu su ko defee liñ doon wax léegi maa ngi nett ni Baye Ibou Sakho day waxtaan ba mu yàgg baas bii riir mu ni teg am waa joo xam ni xam naa fi Baye Ibou Sakho tolloon dafa neex mu ni ko waaye eggaleel waaye Baye Ibou Sakho ni ko yaa dof wax ko ko ñetti yoon ni ko bu wiis ba mu yàgg ni ko boo yoroo say fleur ba mu yàgg asamaan si commencé taw <laughs> neneen loo def lu dul teg sa roosekaay rek amoo xel loolu nag man ak jabel yëpp macha allah rabbi moo ñu dal sëñ Habib ñu ngi ko doon néegandiku boobu ba léegi eh, lañu doon wax léegi rek ci góor gi nga xam ni dafa jafe woon koo xam ndax moo waxal boppam ne ñaar rek a ma xam kenn ki day génn àdduna kenn ki du génn du génn du faatu ki ma xam te faatu mooy sëñ Babacar si ki ma xam te du faatu mooy yàlla. kenn tane wala sëñ mu jóg rek nga xam fan la jëm mënoo ko am moom kay gars yi ngay kocc ci téléphone rek bu départ daal départ na léegi nag arrivé bi moom ka ànd ak moom na ngay laaj fan la nekk su génnee ñu ne ma nga VDN fekk na moom ma nga jëm pire nga topp ko piir fekk bu bu eggee teg bagage yi wàññeeku waat loolu lu ko yàlla defaloon la du jóg mukk nga xam destination directe bu jógee nga ne ma nga tëngee fekk na ma nga continuer Dakar. yàlla defal ko itam ci fajo aajo nag liñ doon wax léegi nii yàlla ijaaba ci wàllu ñaan la ko ci yàlla defal benn la sànq maa ngi nettali sëñ Habib benn oto bu ma doon jaay mu taw a jar bee 318 essence ku ko waxaale rek bàyyi ma ñëw fekk kër El moor mbay Mbaye ma ne ko waa góor gi sama oto bi daa taw jar mu ne bu jaree ñaar loo may jox ma ne ko lii kay ñaaral ba pare rek mu ne ma aal ma ndox ma jox ko mu jàng ci la muy jàng. ni ma wis ko ci waaye bu mu laal sa yére ndax bu ko laalee di nga jaayal yére bi billaahi wal kitaabi oto bi keroog jour boobu la jar. daf daan wax ne moom mu koy jaay. nee na da daan wax moom lu mu la jox pour ko koy jaay. bu laalee sa yaram sax nga jar. nee na bu laalee sa sax nga jar faf yaw yow mi doon jaay sa wàllu bopp loolu mayem la woon. ca la banque woon baaraam bi ne man nag doom ndaw lu ma bëgg mu am mu mu takk jigéen ju ma bëgg mu am doom. ku tële faj ku dof yii moom yàlla da ko jagale mu ni sëriñ Babacar Sall moo ko joxoon toog na mu ni e, riyaada li ko ci sëñ def fu mu mën a ne ci àdduna ak lu njabootam nekkee bu ko bëggee xam fa toog lay toog di ko jàkkaarloo yow. te itam nag fii ñuy waxee yéen ba léegi nag wax naa leen mi ngi superviser jataay bi nit boo waxee dara da nga koy layal la koy layalee mooy li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne woon sunu jëf yëpp dañ koy gaaral Seydina Muhammad guddi alxames ak guddi altine noonu la yant bi teegoo woon nit gaañ yi fay leen jaafar mi ngi nii ànd ak malaaka yi leen nuy te ñan ko reyoon ca muuta loola la mu jàngale mooy nii am na te nit ñoo xam ne ba léegi bu seen dundut moom mooy seen ginnaawam ak seen kanam a yem sëriñ xaaj maa ngi wax na ci kifaayatu raaxibiin nee na am na nitu yàlla yoo xam ne bala ñu lay mën a tarbiya génn àdduna ba nekk ba ba pare soog a mën a def ci yow tarbiya saa ñu dellu si seenu njaboot itam yàlla da leen koy may keroog waa Badar ay yéefar lañ bi ñu leen rey ba dugg leen ci kàmb gi Seydina Muhammad dafa ni leen liñ leen li leen yàlla digoon de gis ngeen ko man it lim ma digoon gis naa ko Omar ne ko yonte bi ndax da ngay wax ak ñu dee ba pare mu ne ko ni ngeen may déggee ñoom it lañ may dégg mais dañoo mënta tontu kon yooyu ay may la yoo xam ne yàlla daf ko defaloon waaye itam li li ñu mën a li ñuy tëjee te nit ku nekk war koo jël ko mbind mooy di dignité ak ngor li ci sëñ Mansour daan incarné nga xam ne mosul bëgg lenn kenn yëf yu boppam rek bi gouvernement bi wàccee te ñuy seet ñu joxoon ay oto ki kër ñu koy nangu mu ne bi ñu yónnee ci moom dafa ne la ah, yàlla def na nag limousine bii moom sama alal la jar bële ci samay tool la jar bële nangam reen leen na xaw ma ku ku ñu mayoon oto nga koy làq ak ci gaaraas waaye man moom samay oto ñeme naa koo fësal moom. nga xam ne teel naa am lu ñuy wax autonomie ci boppam teel a mën boppam teel a mën a defal boppam. su ko defee nag euh, guddi yi ñu jëm nag di fàttaliku seeni mbir ak yokkute la ci ñun euh, ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram euh, lii ko yàlla defal ba àdduna bi yëpp foo tuddee turam ku ne sa xol yëg nga xam ni moom muy tijaan muy murit muy ku mën a doon ñëpp amoon cofeel Sëriñ Mansuur ñaan it ku ne gëm nga ni boo amee soxla bu tàggee bu jàkkaarlooy bu ko ñaane yàlla teggali loolu nag sant yàlla la léegi rek laa koy nettali ci ngoon sëñ Habib kër gu mu demoon di tijji ji bunt ba foofu ñu kànnaare ko ñuy xaar borom kànnaar mu yéex mujj bunt bi indi baaraam bu ndaw ni ko tijjil man la mën sóorul kànnaar bu tijji bu doon ñu nga wut mu dajjil la ko te yooyu yu bëree da ko daan def daawul nekk dara ci moom ci salaatul faatiha sëñ Habib nee na salaatul faatiha da koy def kon nag jeex na alfaatihi li maa uxliq kooku nag xam naa sëñ bi foog mu jox ñu mboon mi loolu nag ah, moom la ñu wane bu ñu ñëwee rek ñu bégale leen ko ñaan yàlla yàlla bu ñu réccu nag lu ñu fa doon daje ndax kilifa am ko te xamoo ko a ah, ñàkk ko sax te xam ko moo ko gën am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën te nit it booy topp war ngaa xam ki ngay topp booy demee war ngaa xam fi nga jëm dafa am waaju doon tukki kaar bu mu arrêté rek nga ne ko nomb maanaam kaar bu taal la loxo rek nga ne ko nomb mujj gi mu ne ndombar day boo demee dëjë fa xew oto boo wax rek mu nomb ma ni waa ji day tukki te déggul tubaab bu mu arrêté rek nga ne nombre moom mu def ni nombre dëkk la mu ne nombre da ñàkkul fa xew oto boo wax rek mu la nombre muy ni may def laa mooy dugg ci oto nombre yi bu ma demee ba nombre ma wàcc li ci des ma dox ko ndax xam naa ne waxtu sori fa ma jëm dugg ci benn oto feesul mu dugg rek toog ne ko nombre waa ji def ni daf ko nen fayal nombre de place jox ko ñaari junni rek waa ji delloo ko 700 ci ñaari junni bu xoolee wecc rek ne ah paasu nombre gi da seer waaye saa yi mu dikkee mu dendal sama doom paasu nombre ñaata la mu ne ko xaw ma ko ne moo tax naan dite baaxu nit loo xamul rek danga koy laaj bi gars yi di commandé ci benn restaurant ñi naan shawarma ñi naan hamburger benn waaye di hamburger moom foog nga wut torchon sinon day tax mu ne man jox ma torchon ma moom nee na torchon lay lay lay commandé waaw waaye waa ji daal bi mu nee ba waaj ñu wàcce ko mu ni sama doom fi mooy nombre mu ne ko déedéet mu ne ko nombre mooy la mu ne ko mooy nombre place yëpp mu commencé kar njaga njaay nag ku mu nekk mu la yaa fi jaam sax jëm nombre nga ne ko déedéet du man ma ne kooku moom doo ko gaaw a gisaat kon sëñ bi si sang njaboota ngi Eh, dañu ñëwoon doon wéttali tabaarakallaahu mba jabel bi ñëwee te macha allah def na fi waxtaan wu yéeme. Eh, jabel macha allah ji waxtaan wu tegu ci Seydi Hadj Malick ci borom daara ci xam-xamu Maodo ci ba ci karaama ni ko Seydi Hadj Malick tatlabu kullu yawmin al karaama alam tara min qabli istiqaama eh, macha allah xol yëpp tooy. sànq maam Omar ni ma nag bu fekkee pare nga ngoon gi boo mënee demaale université aussi gaañaa ko fa ñëpp sëñ Abdoul Aziz tabarakallahu ndax euh, sëñ bi sax euh, jombul mu agsi fa incha allah si ku doon defee kàddu yi rek moo ne woon nañu woon nañ ko yëkkati dolli ko bégalee euh, soppe yi ndax ku ne xam na ni képp ku fi toog rek soppe borom daara ñi nga soppe góor gi nga su ko defee si yàlla yàlla yàggal sa taxawaay def ko itam ci mbégte mu doon loo xam ne ñu ñëpp sunu yokkute lay doon ak sunu jëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu السبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السخي أنوارا لكشف دجنتي